gis tey ay takk der daal di fiy nekk moom nag moo waral ñi fi yeewoo daal di mer. du bu ñu gëmloo affaire de suuf bu ñu gëmloo affaire de këyit xam nga affaire de lan la affaire de ancienneté la affaire de suñu dëkk cosaan la donc ñoom ñoo war a daw suñu ginnaaw ñëw régulariser ñu. siri bi mu ngi tudd extension na kon dëkk bi la war a ne pour mu yaatu. yile suuf nag seeni maam ñoo ko moomoon buñ sukkandikoo ci ñoom wante nag diir a ngi nii suuf si ñu koy daal di jox ñeneen. ne maa bëri xaalis ne da ngay nangu yëfu jàmbur est-ce que loolu dina nekk. ñun ñëpp fi lañ daan dundee kon lu tax ñu ñoom ba heure bii nii tey jii nii ñu ne mboo ñoom xam suñu dëkk bi xam ne fii nii potentiel fi am suuf si fi nekk nu mu neex ak yooyu yëpp ñoom ñoon neen noonu lii yéen so xamu leen li ngeen yor ñoo la gënal soxla bàyyi ñu jël ko bile barab nag fi nga xamante ni ay mécanicien yu ñu jëlee feneen lañ fi daal di andi ñoo fi doon amal seen liggéey wante nag ba ñu xam ne nii lépp lu fasantiku littoral bi liggéey bi dañ ko daal di dakkal borom kër gi daal di biral liggéey gi. démb lañu ñu sotti suuf bi démb la ñu sotti béton bi ñëw rek taf ko fële ñun sax ñëw nañu xool fan la koy yóbbu ñu gis ñu taf ko foofu ñu jàpp suñu jàmbur moom lañ dégg ne terrain bi lañ bëgg collecter ñoom parce que gis nañ ñuy collecter terrain ñoom tamit ñu ñëw profito pour collecter lële. fexe nañu koy daal di jot. ngir mu daal di ci indi ay leeral wante nag bañ demee ci këram dañoo xamal ni nekku fa maire bi itam ñu daal di koy lim ne da cee taqee ndawu meer bi bañ cee àddu bu ñu sukkandikoo ci ñi fi yeewoo nag ay ati ati ata ngi nii ñu daal topp ci njiit yi ngir ñu daal di jot kaayit yi firndeel ni ñoom moom yile suuf dafa daje am déet mënuñoo ci indi ay leeral lu ci mënti ne nag ñoo ngi yaakaar ci gouvernement bu yees bi ñu daal ci xar seen tànk tubéy